Euh, ñu gis euh, bi bi bi damay ñëw sax ci avant làmb ji après ñu doog a ñëw ci làmb ji euh, ñu gis bi Tapha Mbeur di bëri ak ki nga xamante ne mooy Ada Fass defe naa ne ci jour làmb ji nga ñëw samp sa ndënd ñoom ñaar seen diggante yàlla dogal Tapha Mbeur Ada Fass daan ko ñu teg ci matul une semaine seen combat yi ñaar taxaw la moo tax waxaale bi gaawoon waaw parce que tamit ñooñu ñooy samay morom si làmb ko waaw waaw ñoom laa war a bëre si làmb te ñoom laay xam la ñoom laay bëre Euh, làmb ji taxaw ñu gis nga def ci communication jaay làmb ji dama koy daan dama koy def nangam moom mu ko wax jox la nga wax jox ko ngeen dem ba làmb ji nga ñëw keroog démb bi bi nga ñëw stade gis nañ ni nga mobiliser woo waa jàmm gën topp sa gannaaw def ko nañ ko daan defee wala boog ñu yokk ñu yokk nañ daan ñëwee ko démb ci stade bi. loolu yëpp sant yàlla rek parce que ñoom ay xale lañ. Mhm. te maanaam liis nitu nit ñi la ko wax. Mhm. tamit nit ñi tamit xam nga te maa ngi rafetlu tamit loolu noonu baax di leen sant bu baax di leen gërëm si loolu. tamit làmb yi nun moom ñun noonu lañ mel suñu làmb yëpp dañ koy neexal maa ngi dégg bu làmb paase na xam loo. làmb paase dinaa ñëw ci neexal bi sax dinaa ñëw ci neexal bi mais ñu ci bàyyi ñi nga xamante nii dañoo bokk ci làmb nee nañu sa diggante ak Tapha Mbeur dafa teel mënoon ngaa baay ba ci kanam. waaw loolu moom ay waxu xam loo maanaam defet moom bu amee lu la ngay dégg. Mhm. mais man ay ñoom Tapha Mbeur ak ñeneen ñeneen baa ma kenn xel quoi mais maanaam ñooñu ñooy samay morom si làmb. maa moom ñoo doon bëri mun naa ko daan mun na ma daan yàlla moo xam lool ñaar victoire rek dugg benn génn. Mhm. yàlla may na ko ndam yàlla ko ndam li jig rek. mais bi nga ñëwee ci stade bi ñu ci bàyyi nee nañu concentré wu loo bu bàyyi parce que ñu ci bàyyi dañ ne euh, liis dafa togg dafa topp dafa topp fugg bi dafa topp ay supporters am li muy fecc dafa bàyyi énergie bi muy dépensé dafa bàyyi sa diggante ci làmb ji démb. dëgg waaw ñun mooy xel lañ te avant tamit waaw rek juum te mais tamit yoon yemul fi benn ñu ngi jégalu ñëpp mais pour man dama juum rek te ay xel lañ ko xale mooy juum. mais ngeen ñëw ci diggu géew bi arbitre bi sifflé nga liwaatoog moom sànni benn sànni benn ku ñaar mu reculer nga daw topp ko ëlbatiku ne supporter yooyu jóg leen. lu waraloon nga nga nga jàppoon ne da nga jàppoon ne yaa ko mën wala da jàppoon ne damay ñëw jëlee ko fi mu jeex. waaw ba nii may waxee yow ma man damaa jàppoon bu ma ko jàppee dama koy daan waaw mais dem boo gisee bëri amul ko waaw doo jàmm mu indi hypercule si suuf ma dajeeg hypercule bi xam la te rëpp ko waaw. lan moo la gënaloon ci làmb ji da nga bëggoon bëri ak moom wala xeex bi moo la gënaloon. nu mu indi woon dama ko lépp laa préparé woon. booy dem làmb da ngay préparé lépp lépp laa préparé woon mais yàlla moo ne fii xam la combat fii la war a yem mu yem foofu noonu quoi. ñu gis ngeen ngeen bëre làmb ji jeexee ci kaw mais say supporters amul lu leen neex ñu ci bari euh, yaakaar woon combat am noo demee lan nga leen di wax. waaw tamit dëgg la ñun ñëpp man man mi di wax yow sama yaakaaruma si làmb ji parce que comme lu mu wax rek bëre amul dara amul. doo jàppante muy moom sax moom Tapha Mbeur nee na ma kombaa bi da nga cee doyal dafa gaaw a jeex. buggul woon mu mu mu mu gaayo noonu wala mu yombee noonu. mais loolu làmb la rek. mais avant ku Ah, Amadou ku bu mu dóor noonu. Mm-hmm. bu ma ko dóoroon tey moom noonu lay demee. Mm-hmm. mais kuy dóore moom la ñuy dóor waa mm-hmm. mais ñu ñoo opté ne laamu lay def bëri dóor lañ wax. li mënul ñaax suñu yoon. mais Tapha Mbeur man leer ma leer yàlla. keneen ku dul moom sax man subaay lis mën na la daan. yaa ngi dégg. te amul mbër boo xam li lay taxaw di ko bàyyi xel maa ko dóor maa daw song ko. yaa ngi dégg benn coup la ñaar kuur def ni indiwaat beneen ma daja coup te sant yàlla bu baax yàlla moo ne fii nii lay jeexee mu jeexee noonu. bu ñu dépassé woon noonu tamit xamul la mun naa ko daan ak leneen leneen mais yàlla moo ko bëggee noonu waa lan ngay wax ñi nga xamante ni euh, boo jógee ñu jóg euh, ñoo ngi sa ginnaaw lan nga leen wax ma saw leen parce que ku ci nekk tamit boo ñëw nga ànd ak say nit euh, yaa boo boo boo sañoon booy dem ni ngay demee boo ñëw nu ko raw ngay ñëwee lan nga leen di wax ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñooy bëggee liis. waaw lu may samay supporter du leen lu dul di leen baalu ak bu baax leen jégalu parce que ñun ñëpp buñ seen tamit du demee nii. maanaam yàlla moo ko bëggee nii te amantam lii dafa jiitu suñ juddu ñun. Mhm. yee mu ñu si dara yaa ngi dégg. dem nañ def nañ lépp entraîné nañ def nañ lépp mais gis ngeen bari amul dara amul loo ñëw jàppante gis nga benn ku ñëw. waaw yàlla yàlla waxoon namee noonu quoi lépp yàlla la yàlla bu noonu du demee noonu tam du demee noonu. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi samay entraînement di waajalaat bu baax a baax a baax. tamit ñuy wax moom su waay waaw instant moom ku wax yëpp xam lu la ngay dégg. Mhm. mais xam naa sama bopp. maa ngi mais ñu nañu staff bi dafa des. ay xale ngay àndal. boo xoolee démb làmb ji dafa da nga mhm. manqué maturité ñu ci bëri loolu la ñu wax nii. mais xam man la ma jaaxal. Mhm. ba bëri daan la ma wax ñu loolu man ba may bëri mbopat ba démb la sama premier ay xale rek laa àndal di bëri di daan. mais boo daanoo lu ma la lu ne ngay dégg mais maa ngi jégalu samay supporters bu baax di la wax ne làmb moo demee nii kuy dóoree la ñuy dóor. Mhm. yaa ngi dégg avant tamit ay xel lañ ko waa tool guñ fu ñu amee bay ñàkk. gis nga naa ñoo ngi sant yàlla bu baax parce que li si kanam raw lu ba def nañ lu bëree bëree bëree bëree buñ daanoon tamit def nañ lu bëree bëree bëree bëree daan nañu sant yàlla bu baax parce que man dama daan bëre di daan ay doomu jàmbur. yaa ngi dégg. Mhm. ñuy jooy di ñibbi samay supporter di ree di ñëw. Mhm. yaa ngi dégg. gënu gënu ma leen ko waa mais sant yàlla yàlla waxu bëggee nii xale laa. xale mooy jum ko waa damaa jum. waaw mais fi mu toll nii da ngay taxaw xaar wala bu avance ñëwaatoon tey tey tey tey. nga tey tey tey suba damay bëre. man xale laa quoi. amuñu temps bu ñu toog di xaar liggéey rek bëre bëre mooy sama métier. Mhm. daa am leneen lu may xaar. daa ah, jaww ko de. waaw yow man lu ne ñeme naa ko daj ci biir làmb barki yàlla di sant sama supporter bu baax a baax képp kuy bëgg Liss Ndiago wala képp kuy yàq sa ñaar dërëm ngir Liss wala kuy yàq sa temps ngir Liss rek maa lay bëgg bu baax di la jégal su combat bi di la wax ne bi ay xale lañ te dañuy jum ko waa buñ seen tamit xam la dañuy bëggal suñu supporter ñëpp. mais tamit def nañ lépp yàlla moo ko bëggee nii naa bëri amul jàppante benn ku ñëw sol ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. mais di ko ñaaxal victoire bi yàlla ko jëkk quoi. Mm-hmm, parce que ñëpp duñ ay noon déedéet. maanaam man beñ ko moom beñ ma. wax na ko sànq nee na wuñ suñu biir. Mm-hmm. maanaam dañoo benn lii mooy suñu liggéey ñun buñ dajee nag. dañuy neexal yaa ngi dégg mais buñ paree si loolu noonu tey buñ ma tàgg woon ne ma Tapha Mbeur dafa gaañ wala beneen mbër daf may métti xam ma mhm. ne noonu ay noonu bu weesoo làmb barki alquraanu karim amul ah même ci biir làmb sax yéen mhm. mais lépp lu may def pour xaw ma déstabiliser la ñuy wax xaw ma parce que xam lox ñoo mhm. mais duñu ay noonu quoi di ko ñaanal bi duwaa daal na ko jik yee man maa ngi waajal leneen lu nekk sama kanam wax na ko sànq nee na li mu li mu li mu yéene boppam loolu la yéene ndax li muy def bëgg a taral ay waajuram nu ko raw ngay def bëgg a taral say waajur moo tax tamit nee na mu lay ñaanal jàmm ñaanal na leneen loo xamante ne boo amaatee beneen komba yàlla defal la li nga xamante ni mooy li gën moo mën kàddu yu mujj nga tàggatoo kàddu mujj gi mooy di sant boo yëpp mm-hmm. sûrement booy ndaw mm-hmm. maa ngi sant ñëpp ma fi waa Tirel ndaw mm-hmm. yaa ngi ma fi waa Wéef di sant sant waa jàmm gën di sant àdduna képp kuy bëggee Liss Ndiago rek maa ngi lay jégalu bu baax di la sant di la wax ne maa ngi si entraînement maa kanam xam la raw lu bët xale lañ doon jum rek maa ngi ñëpp di sant ñi ma jàppale bu baax ay Seba Ndiaye ay Ami Afia suñu yaay ay maire Awa Balla ay tonto Aziz Diop di sant Abdou Aziz Gueye bu baax di sant képp kuy bëggee Liss Ndiago di sant képp kuy jàppale di sant Youssou Badiane bu baax di sant Mbaye Ndiaye borom Port Saroy di sant ñëpp sant naa ñëpp bëgg naa ñëpp di sant Yves Ndiago or borom partel quoi di sant Mafia yëpp képp kuy bëgg Liss Ndiago foo mën a nekk maa lay sant di jégaluwaat ñëpp nag. gis ngeen ni lay demee ci Wassare Lamb ni lay demee ci jàmmaarloo euh, moom moo doon daje ak ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur gannaaw dem nañ jëli leen Tapha Mbeur mun ñoo ñàkk ñu jëli leen Liss Ndiago gis ngeen kàddu yi nii rek la mën a waxee gannaaw ñaari ndam a waaye benn génn te yàlla dogal na ne daanu na day sant ñi nga xam te ñoo ko jàppale encouragé waat ñi nga xamante ni nii ñoo saa bu jógee ñu jóg di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci wasaare jaamaaloo kontaan naa ci yow bu baax